daleen na jàmm mbokk internet yi seen njëriñ tv dal de wax nag euh, ci Seydou Guèye nekk nag ca gouvernement bu Sénégal Macky Sall jiite ko ginnaaw nag li nga xam ne moom mooy verdict ba jóge ci procès bi doxoon ci diggante président Ousmane Sonko ak état bu Sénégal wala sax Macky Sall. agent judiciaire de l'état bi nak verdict ba jibee woon ca Ziguinchor ak juge Sabasi Faye ne won nañu réintégré qui di président Ousmane Sonko ci fichier électoral bi yamuñu ci nak yobbu mbir cour suprême cour suprême mom casse verdict bu Sabassy Faye weddi ko ba mu set Dal dee bi nañ ko ji tribunal bu grande instance bu Dakar nak noné nak juge mom bolé wu ci jox dëgg saba si fay la def ne nag nañu dugalaat Ousmane Sonko euh, ci yooyile liste électorale maanaam daal ñu dugalaat ko ci fichier électoral bile ki di Seydou Guèye nak addu ginnaw nak euh, verdict bi bamu wadé mom néna dañu mëna constater rek sans risque ñu perdre si moyen sans hypothèse hasardeuse et que justice bi dafa wane euh, tey ne moom dafa indépendante mom Seydou Guèye mom moko wax néna ay procédure la ay normes yo xamné dañu ko définir jëm ci ay loi ak euh, état de droit bu Sénégal ñu ne nag dafa dañoo am obligation ñoom ñëpp respecter décision bu justice bi de kii di Seydou Gueye nekk porte parole bu coalition benn Bokk Yaakaar moo daal di àddoo ci décision bu tribunal d'instance bu Dakar bi réintégré Sonko ci liste électorale yooyu mom nak mom dafa melni de de ak maître El Diouf avocat bu état bu Sénégal bay wax day pourvoi en cassation décision boobule ndax Mom jàpp Sonko warul de ci élection présidentielle yi